mbokk yi li Sadio Mané waxoon ci CAN Côte d'Ivoire édition deux mille vingt quatre maa ngi koy door a gëm mbokk yi CAN ren jile ay surprise képp lañ ci am Afrique du Sud éliminé na Maroc ci huitième de finale yi Maroc mi demoon ba demi-finale ci coupe du monde édition deux mille vingt deux moom la Afrique du Sud te éliminé dóor ko ñaari bal réaction yi nag fi mu ni nii ñëpp dañu ànd ak xol bu féex ndax bëgguñu benn naar des fi keneen ku jël coupe bi nag yaa xam mais naari daal buy jël coupe bi loolu nag mu ngi daal di dëgg di dëkk li nga xam ne moo di confirmation ndax ki nga xamante ne moo di Algérie dem na. Maroc dem na Tunisie dem na mais mbokk yi cadre ji ku ci nekk war na si mën a jàngat ndax Sadio Mané waxoon ni ne képp ku gagné moom mën tey match bi gis nañ ni ki ñi nga xam ne ñooy Bafana Bafana yi ñoo gën a bëgg match bi marocain yi xam nga ni Maroc ni mu indi nañ caractère ci match bi mais Bafana Bafana dañoo jël match bi teg ko seen bakken comme ni ko Sadio Mané doon waxee li nga xamante nag moo am ci jamono bii moom mooy demi-finale yi ak quart de finale yi nan la nar a demee bukki ba màttoon ki nga xamante ni moo di Nigéria matt li nga xamante ne moom moo di Gambie ba mu koy jël seet nañu kan bi saay at bu jot ki ko jël day teel a toog lan ma war a loolu ku ci nekk nag mën na ma wax sa xalaat jaarale ko ci commentaire yi yéen ñi nga xam ne nag ay pronostic ngeen dama leen di laaj kan ngeen yaakaar ni final bi jamono bi la war a mën a doon à part benn équipe bi nga xam ne bokkoon nañ ci favori yi moom moo di Nigéria moom rek a fi des Mali wuñ ko ci woon Afrique du Sud boolewuñ ko ci woon Cap Vert ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne jamono bi ñu ngi préparé seeni ay quart de finale wooy leen di abonné ak a partage suñu ay vidéo saay su nekk bés bu nekk fi lay xewee fi nga xamante ne moom moo di Allo Dakar jàngeen jëf